te sàmm sa njàngale te sax ci noonu dinga musal sa bopp yow ak ñi lay déglu benn timote saar juróom bul gëdd mag waaye waxtaanal ak moom ni sa baay ndaw it nga digal ko ni sa rak jigéen ju mag def ko ni sa yaay ju ndaw ni sa jigéen ak cell gu mat sëkk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 ragal yàlla ngëm mbëggeel mu ak lawet góorgóorlul ci bëre bu baax bi ba ub làmbi ngëm te feddali sag teey ci dund gu jeex gi ndaxte ci loolu la la yàlla woo te looloo waraloo nit sa seede su rafet fa kanam mbooloo mu bari noonu fi kanam yàlla mi jagleel dund ci lépp ak fi kanam kirist yeesu mi seede woon seede su rafet fa kanam pons pilaat maa ngi lay dénk lii sàmmal ndigal li bañ a am gàkk mbaa ŋàññ ba kere Yeesu Kirist sunu boroom di feeñ ci ndamam ca waxtu wa yàlla dogal moom kenn mooy boroom bu tedd di buuri buur yi ak kilifa kilifa yi moom kenn moo jogoo dund gu sax dëkk ci biir leer gu kenn mënta jege moom mi nit musula gis te nit mënu koo gis moom kenn yelloo taraanga ak màggaay ba faw amiin ñi barele alalu àddina nag dénk leen ñu bañ a réy te bañ a wekk seen yaakaar ci koom-koom yu saxul fenn waaye ñu wekk ko ci yàlla mi nuy may naataange ju mat ngir nu man ci bànneexu dénk leen ñu def lu baax te bare jëf yu rafet ñu yéwén bay sedd ñi amul di fàggu dencu ëllëg bu wér noonu dinañu fedd li seen teey ci dund gu wóor gi cey yow timote sàmmal yàlla dénk tangamlul waxi neen yu àddina kese te dëddu werenteey ñi mbubboo xam-xam fekk dañoo réer am nañu topp xam-xam boobu waaye mooy nañu ci yoonu ngëm na yiwu yàlla ànd ak yéen